gis ngeen sama gars yi toujours ñu ngi Paris nekk ci caravane bi toujours ak album salam bu bees bi gis ngeen bañ jaaree ci Awa Diallo mu jënd 100 CD Awa Diallo noonu soxna boobu noonu noonu Alex Thiam noonu du ko ko yóbbul Alex doomu nday Wally Seck Seck di laaj 100 CD pour ko salam Diallo delloo ko njëkkal Alex loolu pour la la waaw man jënd samay CD man Alex Thiam di ko may samay fans dégg man CD man dama ko jaaree ma koy may képp ku bëggee Alex Thiam di bëggee Babel Auto boo ñëwee ma may la CD man. CD bi neex na wax dëgg yàlla jàmm laa paix tur rek moo ma njëkk a neex jàmm ak salaam bi ki sa xam nga. te CD bi fii raa aussi dama koy déglu mu may gën di dugg di gën a neex kon maa ngi koy digal ñëpp déglu leen ko. Mhm. waaw. lan ba tey yàqul dara. ay kër yàqul dara yàqul dara. waaw CD baa ngi nii maa ngi koy wax ñëpp nañ ko déglu. parce que de fur et à mesure nga koy gën di déglu rek mu lay gën di dugg waaw man dama koy teg di ko di ko gën di neex kon ak la ngi Salam artiste di bu yaa fi ne. <laughs> waaw tàggu Fall. tàggu bi bi. Mhm. Alex ëpp na la Alex jënd. di ko may samay fans képp kuy Alex di bëggee Salam Diallo di bëggee Babel oto yaa ngi ci biir ku ñëw ma may la CD. kon li nga doon déglu Salam Diallo ca kaw